jëwriñuy eh, maam jaara ji nga xam ne da ko doonu ci sëñ Basiru te nekk ko ak nam ko defeek ni mu ko xalaatee ak ni ko organisé loolu loolu ku ne xam na ne moo taxit noonu mu ko xalaatee te may suñu borom la mënoon naa ñàkk ndax am na yu bare bari yu mu def yoo xam ne nii kenn séentuwu ko woon bu ko defutoon kenn du ko xalaat waaye ba mu ko defee xam nañ ne lii ku yàlla may rek mën a xalaat lii ndax lu mënutoon a ñàkk la waaye sëñ Moustapha dafa neex àndal jàmbaar la joo xam ne du tiit du du du jaxase ñenn te itam loo ko wax dana teey ba lijjanti ko ba mu jeex ku neex a àndal la jàmbaar gi ci moom nag kenn amu ko ñu ma indee fii ñu jox ko àll bi yëpp jox ko plan bi mu wama naa plan baa ngi nii tool yëpp jox nañ ma ko luñ luñ bëgg ren rek jox nañ ma ko na ko les nag danaa fi yebal sa baay asan bay mu ñëw ngeen les ko yëkkati der goo xam ne neexut a wax ci mbooloo waaye der goo xam ne fees dell ki bal jox ma ak fetu ñaar ngémmiñ gu gu mu makk mbay mi ko moom mu jox ma ko ak ñaari paqueti bal ne ma toog laa nga les ko ba mu mel ni bi nii ni mel nii nga defal ko ci rek loolu kay sëñ bi sawar naa ci. li nga xam ne moom la dong yi daan bay ci daara ji ñaq yooyu moom la tabaxi jumaa ji ñëpp dañoo xëy gis ko mu tàmbali ko muy taxaw ak a dox muy taxaw ak a dox ba mel nii tey. kon nag Porokhane loolu la. waaw loolu la loolu daara ji nag waxi noppi moom di lislaam gépp la ko defal réew yëpp la ko defal eh, xalaat bi xalaat bu rëy rëy rëy moo xam ne nii buy continuer ba faw la te moom itam yàllaa ko ci dimbale mënoon naa ñàkk waaye bëgg gi mu bëgg liggéeyal yàlla moo tax bi mu nekkee soxna jaara yi fas yéene liggéeyal soxna jaara ngir yàlla liggéey bu nga xam ne muy dugg ci lim gënoon a bëgg mooy alxuraan liggéey bi mu ci liggéey liggéeyal ko ci suñ soxna su tedd si nga xam ne mooy sëñ bi rek ndax mooy buntub sëñ bi ndax mooy soxna si nga xam ne am na loo xam ne kenn mësu koo am ci jigéen bis bee mu am ak dëkk bee mu am ñi liggéeyal yàlla ci lislaam bari na waaye kenn mësu ko ci am kon ni ni sëñ bi ni may ko sëñ bi beroo rek ni la soxna si beroo moom mii nag yàlla may na ko ci ndam. pour ni mu ko dundale nga xam ne Cheikh Abdoul Bachir bu ko dekkalee di ko taxawu waaye bàyyi ko fa nag mu développé ko développement boo xam ne fu mu àggatee gannaaw yàlla moom la ak ñu tudd ca kër maam Jaara kon loola liggéey bu rëy boo xam ne eh, dañ koy fàttaliku te di ko ca lu ñu mën a ci moom eh, moo tax eh, damay wax ne Poroxaan benn xasida gu ma dabb daaxee woon ci sëñ ci soxna jaara mm-hmm. da ciy wax ci biir ne boo siyaaree dem Poroxaan ba noppi na nga na nga siyaare nag soxna si ñaan ca waaye na nga siyaare waa kër sëñ Tuubaa yi fa nekk muy waa kër sëñ Bachirou mm-hmm. ndax ñoom ko day ñoo xam ne dañoo dañoo te lim gën a yar waa kër mooy mooy discipline waa kër sëñ Bachirou dañoo am yar dañoo dañoo toppante toppante goo xam ñëpp lañ ko seedeel mm-hmm. waaw moom ku ku leen xam ak bokk mm-hmm. du ma nangoo ne bokkuma kër sëñ Bachirou ñëpp kër sëñ bokk ndax ñàkk bokk kër sëñ Bachirou wóorut waaw <laughs> wóorut kon léegi seenu toppante ak seenu tarbiya ak seenu taalibe sëñ Moussa daf ko gën a incarné moo tax ma ne boo boo siyaare soxna si ba noppi ba ñaan fa la nga fay ñaan ba def fa la nga fay def na nga ziare waa kër Sëriñ Tuubaa fa nekk mu waa kër Sëriñ Basiru ndax dañoo am bari fuñ jaar eh, te ka leen fa jaarale di ko makka di suñu sëriñ bi di Cheikh Amadou Bachir moo tax ma ne léegi eh, sallim ala boo ziare ba noppi sallim ala ahli baytin laazamu adaban tawaaduan xodaman dil barra sujaana qad duribu min xabirin aalimin wariin bachirina cheikhina rabbahu mawlana raqaahu safaahu bahrun la nadira lahu fa arraxa baadahu mawsuuca haadina fa tabaarakallaa foofa moom wax dëgg yàlla moom la mu fa def moom lu ñëpp gis la waaw def na lu sëkk joo xam ne xam na ne maamam sant na ko gërëm na ko ndax defal na ko loo xam ne ba adduna tukki kenn di su fàtte waaw jëf li mu fa def si lu baax ak ndax dama jëlale njaboot defat gam dafa dëkk ba rek ak barabam na mu ko toppatoo waaye dama jëlale daara jëm fa def rek na muy doxe ci ay jigéen ñoo xam ne yooyu moo ko alxuraan dara alxuraan ba di ko a yem mu ne kon dana fi dagg kër gu maam jaar gu mag mooy pàkk bi ni tey nga xam ne kër gu yaatu la lan la fi programme woon mu dana fi def lu mat ñaari junni nit ak yu topp ak ñi leen di taxaw kon xam ngeen ne lool kon pàkk bu yaatu lay doon te effectivement pàkk bi noonu la toll mu wax ne li tax ma dagg fi kër goo xam ne kër maam jaara la nit ku nekk bu amee dëkk itamit war na fa am kër boppam goo xam ne kuy ganam fa ngay nekk kuy nitam fa ngay nekk euh, euh, itamit bu fi nekkoon tamit fa ngay foofu lay nekk. lii dafa doon loo xam ne lii lenn la ci ay jëfam ci ci ci Porokhane bu ko defee la nga xam ne it moom moo ko jiitu woon mooy kër maam jaara gi bëgg lu boole bokk ñu bokkee xalaat bokki pas-pas bokki yéene di yëkkatindoo di dalandoo loolu moo taxoon mu sos kër jaara gi. mu ne soxna jaara bu nekkoon poroxaan nekk ci këram yi tamit dina amul njaboot te njaboot gi man naa am du doon njabootu boppam njaboot ga muy doon mooy njabootu lislaam gi nga xam ne mooy ñi ñu ko tuddee mu ne soxna jaara su nekkoon ci kaw suuf ko tudd doom di nga ko ko jox ndax li tax ñu koy tuddee doom mooy bëgg bëgg ci jikkoom yooyu bëgg ci barkeem bi tax ku ne di ko tuddee doom mu ne kon nag bu ma ko defee defalee kër ba noppi dinaa jël mboolem koo xam ne waroon na koo yor ci jamono indi ko ci biir te kenn gënu ci yey ay turandoom yi nga xam ne dañ ko ko duppee mu daal di xalaat ne bu ñu fi nekkee tamit kat tam nekkoon fi ak ñoom li muy def mooy da leen di jàngal li mu leen jàngal leen diine moo tax mu ne da koy def daara juróomi téeméeri turandoo soxna jaare yoo xam ne jóge nañ fu nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñëw fii ci daara ji mu def ko lan muy daara moderne dama leen wax ne leen bu ñu nee daara moderne def fii la njëkkee wala kenn jiituwu ci sëñ Moustapha Bassirou ndax daara ji boo gisee ni mu ko jàngate ak ni mu ko tërale rek defe naa ne kuy waxati moo moderne wala ngay wax njàng moo xam ne mu tege ci yoon la alxuraan na ca lépp na ca te mu dëppoog jamono boobu da ngay xool poroxaan yi sa xel di dem sëñ Moustapha ñun jigéen ñi war nañ ko ci sant bu baax a baax ndax daf ñoo may jom daf ñoo xamal ne ci ngeen bokk yéen jiitu. adduna bi yëpp xam nañu taxawaayu poroxaan li nga def ci poroxaan delloo njukkal sa waajur ju tedd ji di Jaara ñu gis ko ci daara yi nga xamante ni moom lañu ñu jagleel turandoo xam li muy def ci njaboot gi ak ci réew mi gis sa taxawaay ci wàllu mbéy ak lépp luy suuxat koom-koomu réew mi te it nañ ne gis nañu ne barab bii nga xam ne mooy barabu soxna si barab la boo xam ne ñaan yàlla defal ko. nee na moo taxoon mu wax président ne ko li nga xam ne moom ngay ñaan fa barab ba yàlla na la ko yàlla defal. kon loolu mel na ne am na. yow itam na nga ñaanal sa bopp. ñaanal réew mi nga xam ne yaa ko yor tey. ndax loo ci ñaan. xëy na yàlla mën la koo defal yar bi ko bàyyam yor mooy sëñ Basiiru ci jàmm yàlla ak liggéey da koo sànjaal ci saa su ne mu topp àll bi di gor eh, di fa yar ay taalibe ngir ñu mën a jëriñoo seenu dund ci àdduna ak ci alaaxira muhammadan bi nasmin wa nasrin wa huwa busuri kitaabullahi wa sunnatullati ya ahtami amana barab bi day sëriñ bi mi ngi ko sanc ci 1981 ah bi koy sanc nag fi xawoon na doy lool mën naa ne ab sën la woon sën bu mag boo xam ne daanaka bâtiment bi mën naa ne xawoon naa tolloo guddaay bi ci kaw waa dëkk bi tudde woon ko sëgi mbaam bi yàlla dogalee mu defar ko ba mënees fee dëkke mu daal di jënd fii nga xam ne mooy quartier bi tey yàlla dogal bi ñu ko lotissé mu daal di fab ay taalibeem séddale leen ko daal wax na quartier bi nañu ko tudde Touba Pout dogal sëñ Moussa mii fi nekk tey moo àndoon ak dongo yi moom moo doon taxaw dongo yi naka jëkk fu dongo yi jëm mooy ànd ñoom moo leen doon taxaw fii Cheikh Awa Balla mii nga xam ne moom la fi sëñ bu déel tey ba mu nekk fi ba tey jii وسنة mbokk yi boo ngeen demee Pout lii mooy tool ba nga xamante ne bii Cheikh Moustapha ibnu Cheikh Mamadou Bachir moo fekk fu ñu daa wax sëgi mbaam mu transforme ko littéralement bañ di fa bàyyee loo xamante ne bii même condition yi ñuy bàyyee ci Europe ak ci États-Unis ko jaay ci biir réew mi ak di ko jaay ci bitim réew bokki jullit yëpp ak waa Sénégal di ci jëriñoo kon lii c'est un bon exemple de développement un bon exemple ci agriculture boo xamante ne bii ñëpp war nañu ko rey d'ailleurs loolu sax ma waral état bu Sénégal jël centram ba nekk njool duppee ko Cheikh Mamadou Moustapha Bachirou ngir ab liggéeyam ci wàllu mbay ak ay compétence am ak résultats yi nga xam ne am na ko ci wàllu mbay muy baykat boo xamante ne bii réew ñëpp xam nañu ko te ñëpp na jël exemple ci moom ngir mën a soqali Sénégal. 1987 la ma indi Pout euh, bu fekk boobu maa ngi woon naaweel ci sama mag di sama sëriñ sëriñ Moussa mu indi ma fii Pout. Euh, liggéey bi mu ñu bàyyee yàlla defee mu yéeg. 2007 euh, ci dénkaane woon ne dafa bëgg waxtu wu fi jógee itam liggéey bi continuer di dimbale njaboot gi di dimbale. doomu aadama yi nga xam ne ñoo fi doon liggéey ndax yàlla def na fii naka jekk lu mat junni nit ci waxtu session dañ fi nekk di liggéey euh, ñeneen ñi nga xam ne nekkoon nañ ci daara ji doon doo ngay tarbiya wàccoon itam di ay emploi ñu bari dañu fi di baana baana di liggéey mu jur économie bu mag ci Sénégal mburu yu luju mi itam bari na marché caaro yi marché yooyu dem ci Sénégal fekk fa yoo xam ne dafa jóge woon ci toolam. yàlla suturaal nañu ba loolu mënu bàyyee ngir bëgg. nit ñi di fi jariñu loola mu ngi wéy ba tey li fi nekk ci ñi fi liggéey war na noo mat 600 personnes muy juróom benn téeméer war na ko mat ci usine ba ñuy traité haricot yi au moins ñetti téeméer ba ñeenti téeméer dana fa nekk mille 1200 daal presque danañu fi nekk di di di di liggéey ci ci ci wàllu ñi di récolter ñi di emploi ñi di def triage santé communale yooyu. bi ay contrat la daam ak ay tubaab. di liggéey ñoom loola itam ba tey daggut ca loola euh, muy ay italien la ñuy liggéeyandool fi mu nii ñoom la nekkandool ci liggéey bi. ah Moustapha Bassouria Mbacké. Mhm. Euh, j'étais grand chariot et j'ai dit que la ferme c'est très belle. Et aujourd'hui, euh, bien. Ça marche bien. Mhm. C'est ça que nous devons améliorer encore. Pour améliorer, c'est ça que nous devons faire encore. Mhm. J'ai beaucoup d'investissements ensemble. loolu kon mel na ni lim ñu bàyyee woon bëggoon mu wéy ñu am ba tey ndax daf daa wax ne euh, dama bëgg liggéey bi wéy ba euh, nit ñi di fi jëlee seen dépense ku ñëw liggéey fii bu ngoonee nga am loo mën a yóbbu sa kër bu ëllëgee loola man dana ma fekk fa ma tëdd loolu daf ko daa wax. sama yitte yëpp. moo di ñu xam la leen tax a jóg. moo di xam la leen tax a jóg. am la leen tax a jóg. am tax a jóg. Ah, kon nag. kon nag. defe naa ne ñi fi nekk. defe naa ñi fi nekk. sama bénéfice moo di rek. sa bénéfice moo di rek. ñu liggéey lu leen mën a dundal. ñu liggéey lu leen mën a dundal. ndax suñu ko liggéeyul tam ndax suñu ko liggéeyul itam. fu mu mën a jëlee lu ñuy dundee. fu mu mën a jëlee lu ñuy dundee. danaa ko def danaa ko def. li nga xam ne moom moom laa soxla ci ñoom. li nga xam ne moom laa soxla ci ñoom. ma man koo am. ma man koo am. loolu moo di yor leen fi. loolu moo di yor leen fi. yar leen fi. yar leen fi. ci diine. ci diine. jàngal leen ab liggéey. jàngal leen ab liggéey. loolu doy ma sëkk. ci barkeem. ak yéeneem ju mu amoon ci ci ci ci ci ci liggéey loolu moo nu ci dimbale ba nekk fi di taxawan ni ba negani loolu nag moo tax ñi ci sant yàlla bu baax a baax di ci sant Serigne Touba di ko sant moom di ko ñaanal suñu borom fayal ñu ko ab liggéeyam ak taxawaayam ci ci ci ci Sénégal gépp rawatina fii ci Pout fii ci Pout mën naa ne ñëpp ci jariñ Cheikh Moustapha Bassirou Mbacke jërëjëf Cheikh Moustapha Bassirou Mbacke jërëjëf Cheikh Moustapha Bassirou Mbacke jërëjëf noonu waa Pout day ñun ñu ngi sant yàlla bu wér a ak dëkk yi ñu wër. village yi nga xam ne ñoo wër Pout. ñoom ñëpp ci tool sëñ Moustapha Bassirou la ñuy liggéey sëñ ba Bassirou jóge Pout. ñëw nag Ross Béthio exploitation rizicole kenn ku ne xam na ne seen état du Sénégal ñu ngi wax ci autosuffisance alimentaire kon tey Serigne Moustapha jiitu na état ci autosuffisance alimentaire ndax boo demee Ross Béthio tey. ay hectares yu bari lool la fa sëñ Moustapha exploité ngir mbayum ceeb. fi ne bokk na ci fi mu mujj sos mi ngi ko sos tam tàmbali mi tàmbalee ci 1978 booba Jibril Sène mooy ministère développement rural moo ko joxoon ñeent fukki hectares ci fee ñuy wax Ngaleen ci wetu Ndar eh, bi ma ko joxee nag 79 jëm 80 mu jox ma këyit ba mu ko ba mu ko bind ma wax ji bind ni naa ñëw sayet gi wan leen këyit bi ñu wel ma fuñ ko jox ci nga leen maa ngi fekk secrétaire général sayet soo wax Amadou Abbas Ba mu jën doon ab ministère moom laa fekk muy secrétaire général sayet ma ko wax wala këyit bi fekk Jibril Seen moom ab liggéeyam jeex na ba ñu andi fi sëñ Lamin Jóob mu wutu ko ci Cheikh si nag laa laa ñëwee sayt ngi toppatoo loolu yi eh, Abafa ne ma lii nag ginnaaw ministère du ministère moo ko defoon te ministère bi dafa yees dañuy dellu ci ministère ba mu yeesal kayit yi ma tamit fi mu saa ci Maro waxoo ko mu ne ma ko naa ko laf ba dikk bu mu ñëwee soixante dix neuf quatre vingt quatre vingt un quatre vingt trois. Mhm. Sëñ Lamine Diop jeexal na. jibi seen jeexal na Omar Xaasum Dia nekk PDG wu sayt bëgg waalo waalo yi gën a mën a béy bu baax bëgg it fu ñu ko mën a royee mu tamuy wëlëree sëñ Muntaxa Basiru rek sëñ Mustafa Basiru mu ne sëñ Muntaxa damaa bëggoon nga ñëw waalo ngir ma jàppale la ngir nga liggéey nga waala waaye mën a roy ngir personnel Abdou Diouf dafa bëgg mbayam ceeb mi gën a yaatu ci réew mi tamit tamit mu daal di ko bële Omar Xaasim Dia. sëñ bi saa gëmee ko moom. ñaa koy joxe fii ci sayet lu ma téeméeri hectare ci delta defaral ko ko sëñ bi taxaw mu andi dongo yi fii ñu taxaw tey fenn la ci tool yi nga xam ne moom la sëñ Moustapha daan liggéey fii ci wàllo ndax tool yi mu fi am dafa nekk ay barab yu taqalikoo secteur bi nga xam ne moo ci gën a jege Ross Béthio mooy bi ñu tudd Garanding am na feneen fu ñuy wax delta nekk ci penk mu Mundoom fi ñu taxaw tey mooy fi ñuy wax Touba Dios mbokk ci tool yi mag yi nga xam ni mbokk na ci sëñ Moustapha njëkk a taxawal fii ci Waalo. ñu jox ko secteur 44 bi ñu ko joxee secteur 44 nga xam ne dañ koo bàyyi woon dañ ko abandonné woon. Hmm. parce que ña fa nekkoon dañ ko abandonné ne neexut a liggéey hmm. ah moom mu ñëw ak euh, Pastefam. Hmm. liggéey ko liggéey boo xamee ne bi bu normal ba nga xamee ne ñi nga xamee ne bi sax dañ fi dëkk yaakaaroon ne mënuñu liggéey mënuñu liggéey bi gis nañu yéemu ci liggéey bi nga xam ne sëriñ bi daal na ko liggéey ci loolu nag la ko sawet di gisee di ko yokk di ko yokk ay hectares di ko yokk ay hectares àgg na ci cent trente cinq hectares soixante waaw 135 hectares 60 ci ci kaas yi mbundum bi moom la suñu saa bàyyi ci suuf kaas ah, bi nga xam ne mooy kaas bi nekk zone Ross Béthio bi am na fi 70 hectares yoo xam ne yi moom it daan ko béy nga xam ne boo ko seetee léegi dafay nekk 206 hectares virgule 50. ci biir lool loolu itam changé na li nga xamee ne bii noonu la nit ñi doon jàppe liggéey bi hmm. parce que liggéey bi mu doon liggéey wane na suuf am na njariñ ak li mu ciy génne war na am njariñ moo tax na ñi fi nekkoon gën nañu jàppaat suuf si bu baax indi na fi itam loo xamee ne lii ci biir daare yi la nekkoon parce que dafa nekk koo xam ne bi dafay def euh, éducation dafay éduquer mais dafay def formation professionnel ndax euh, li tax muy def formation professionnelle mooy képp koo xamee ne kii ci daare ji nga nekkoon ca nga xamee ne kii aajowoo nga tracteur fekk ne moom wut na tracteur ba nga ciy jàng ba mokkal soo aajoo oto wut na fi oto ba nga xam ne da ngay jàng ba mokkal nekk ci daara ji soo aajowoo leneen loo moissonneuse batteuse yi nga xam ne moom nga gis tey am na ñoo xamee ni ci biir daara ji fi la ñu ko jànge ba mu mokk ba nekk ay professionnel madhi muhammadan bi nasmin wa nasrin wa huwa ni'mat satu sëriñ Moustapha Bassirou Mbacké dafa daldi di dundalaat mbooleem dëkk boo xamante ne bii waajuram sëriñ Bassirou sancoon na fa wala mu amoon fay tool maris na ca lim dëkk bi di Touba al Mahrousa ak njaareem ñu gën ko xam ci Diourbel fi sëñ bi daal nekk ci kër bu mag gii li mu fi daal def moom la fi daal def toog fii di dimbali bindee fi di xam seeni soxla di leen ca dimbali lépp lu lëj mu lijjanti ko foo daay tàkke mu fay ko fu ay am buñ ko waxee loolu bu ko yëgee dana solo dàllam dox ko ba mu sedd guy kenn du yëg nekkal fi bindéef yëpp am it personnalité boo xam ne ñëpp xam nañ ko ci moom bu tegu si masaa jot ni ko sëñ Basi daa def la ko daa def masaa jot lim liñ ci daa def la koy def tamxal bi it yëpp ba si gàmmam yi nga xam ne sëñ Tuubaa ko daa defal moom di fi berndeel nit ñi ginnaawam sëñ Basi di ko def ci ma fekkee lépp ba mu ñëw noonu la koy defee ba fii mu toll ba ci gàmmu rek jaww ji li sëñ defoon da koo yokk waaye wàññiwu ko lu mu fi defoon rek bu defoon benn def na juróom-ñeentam walla fukk loolu li ma na koo ñu bari mën nañ koo seere ci waxantuma it li ma li fi bokk taxul mooy wax ko damaa wax sama diggante sama tayi bàmmeel li ma xam ci moom fii ci kër gi fii la daan nekk heure yi la daal génn daa bàyyi ko ba di ko annoncé ci rajo bi lay génn ba midi ngoonee bu génnee ba julli timis waatu amoon na si kër boppam gu moo goo xam ne tey ma nga ca mbuddaay foofu ba fi sëñ bay ne foofee la daan dal sëñ Moussa Mbacke tey ab taawam moo ca ne tey tegoon fa Serigne Bassirou ñu gën ko xam ci Serigne Bassirou Mbacké Sany mi nga xam ne sax mooy actuel maire de la ville de Typ moom ak rakkam Serigne Massamba Mbacké ak Kaolack mu tudde woon barab ba Touba Ndorong Sagata mu bàyyi woon fa sëriñ Serigne bu Mbacké doomam ak magi taalibe ya fa nekkoon. si Bachirou moo ko sanc 1938 bi ñu koy sanc fekk na mu daa ñëw ci fii ci geer daa dem dëkk bu ñuy wax ndaam sëriñ bi ñuy mabaloo nekkoon fa te xeeb sëñ Moussa bi may indi fii dafa wax ne gi dañ koo defar rom egg seex ma gi sonn ci lool ndax ma nga tàmbali woon ci ay maam ak i baayam baax ci moom mu féete woo ko def ci lii bu ci def ma bañ euh, mu rab kenn di ma kenn kenn kenn di fi jaar di ma yedd laa boo léegi xam bu fekk suñu bisiru xamul ma koy laaj moo tax ma indi fi aboo mii ak ndeyam ndax jëmmi kër gi damaa ñor ak daaru salaam kayel fi nga xam ne moom Cheikh Mamadou Moustapha fa la gane jamono nga xam ne gannaaw bi waajuram daf ko joxoon sëriñ Moustapha Lo Abdourahmane Touba Saloum ñu gën ko xam ci buleel mu bàyyi woon fa sëriñ Abdou Lahad Mbàkke doomam yusaxiru ma yasa bi man saa bi taysi wa wa qadiru fakrim bi Kaffrine mu bàyyi woon fa bàyyi Moodu Mbàkke ak magi taalibe yi mu àndaloon liggéey bi janaabu aqiru xanitu bihi rabban waliyan yaqulu li tees mu bàyyi woon fa sëriñ Mut Cheikh ak mbokki bi yi nga xam ne ñoom la àndaloon liggéey bi Touba Guédiawaye amoon kat ci dakaar mu bàyyi woon fa doomam imaam Serigne Cheikh Fatma Mbacke ak magi taaliba ya nekkoon ñu daal dundal barab ba. këram gii nga xam ne mooy géejawaay mu tuddee ko Daarul Minan bi mu koy tàmbali dafay indi doomam di jëwriñam di Serigne Moussa mi nga xam ne tey mooy tawam tooge jotaayam boole ko eh, liggéeykat yi muy dongo yi mu taxawu liggéey bi man ñii mu indi ma fi ah, ngir jàkka ji ak lépp loo xam ne taxawaayam moom la war a taxawe bu fi nekkul ñu taxawal ko bi ma ñëwee ñu jël matériel bi yëpp teg sama loxo na ma lu fi waaye jël na nga ko bind luñ fi diwal nga bind ko kon xam naa lu baree bare lu dugg ci kër gi eh, ndax maa ko doon bind ak dëkk bi ñuy wax Pout aw bi bi bunyati fasaka ala mawla al karim yasiru alayka صلاة منه ak béer ak Bambilor mu tegoon fa doomam sëriñ Cheikh Awa mu ànd ko ak sëriñ Xaadim Mbacké ak magi taalibe yéen ci àndaloon ñu daal dundal barab tegoon fa soxna Faati Mbacké moom sëriñ Abdou ak bokk yi magi taaliba ya fa nekk ñu daa dundal barab ba fii ñu ñëw tey eh, mooy kër Cheikh Moustapha moom Cheikh Madou Bachir ci Tivaouane eh, muy kër goo xam ni mi ko fàggul boppam gannaaw sëriñ Bassirou Mbacké ngir wéyal yéene sëriñ Bassirou Mbacké fii ci Tivaouane def ko muy këru jullit yëpp waaye def ko muy këru taalibe yëpp defoon ko mu kër Serigne Touba ndax moom Cheikh Ahmadou Bachir moomu fii ci Tiwaawan mooy doomi Cheikh Ahmadou Khadim ji nga xam ni fàggu woon na fi kër loole nag gannaawam bi mu demee ci atum 1966 doomam di ab taawam di ab taalibeem di koo xam ne moo ko yaral boppam euh, di Cheikh Moustapha mu Cheikh Ahmadou Bachir ci la wéyale bëgguk sëriñ Bassirou googee ba tax mu fàggu kër gi euh, bi muy fàggu kër gi nag booba dëkk bi àgg ak siwul fii waaye moom ci gis-gisam euh, xamoon na ni dëkk bi luy jëm kanam la luy gën a yaatu la euh, doomi Sëriñ Tuubaa yi fi fanaan takku na lool ak i sëtam waaye njaboot googu ñu tudd di Tiwaawan di jabat maam maam maam El Hadj ci maam maam El Hadj ñëw na fi ay yooni yoon fekk fi Cheikh Moussa Bachir euh, Ndiassane ñëw nañ fi ay yoon fekk fi Cheikh Moussa Bachir loola nag la ko sabab mooy sëñ bi saa yu masaana ñëw fii ci këram gi day jàppe boppam ni dëkkandoo la ci Tiwaawan ba balaa toog day dem nuy ji bokkam yooyee ba ñu ni ñëw na mu soog a ñëw toog tàmbali nganam murit yëpp fekk ko fi jullit yëpp fekk ko fi noonu rek la daan demee. ngaay bu bàyyi woon fa doomam sëriñ Maxtaar Mbàkke ak magi taalibe ya nga xamante ne bii ñoo àndoon ak moom liggéey bi Louga ak caar jëm mooy bàyyi woon fa doomam sëriñ Fallou Mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ Fallou Caar ak magi taalibe ya fa nekkoon ñu daa dundal barab ba Thiel Maha mu bàyyi woon fa sëriñ Moussa Mbacke ak magi taalibe ya fa nekkoon kër Momar Sarr mu tegoon fa sëriñ Issa Mbacke ak magi taalibe yam ko àndaloon xam naa ne seetu sëriñ Touba yi ñëpp a baax waaye c'est Moustapha Bassir Mbacke def ci ràññeeku woon ci mbir yu bare bare bare bare ndax ñu ñii tey dëkk Kër ma Sarr Cheikh Moustapha Bassir Mbacké mooy suñu porte d'entrée pour ñu jokkoo ak kër Serigne Touba ci lu bare bare bare bare man maa ngi nekk président communauté rurale en 1985 tool bi ma jëkk a maye ci communauté rural Moustapha Bassir Mbacké laa ko may boobu bi léegi maa ngi maye tool masante ko yàlla boon tool bi nekkoon juróom ñaar fukki hectare ci dikk bu tudd kër yërim ñu dem bee jamono mune ma jumóoru tool bi wuutuma ci kaalis yàlla def ma kiir ci mbey li fi indi mooy dafa am ñoo xam dañu yaakaar Serigne Touba jël seen njaboot jox ma ma bëgg am fu ma wéetaax ñoom jàngal leen liggéey jàngal leen Qur'an al azim jàngal leen kan mooy Serigne Touba ba ñoom su ma tekk li ko ñoom ñu mën a yore seen bopp ndax ku am kam-kam Qur'an te amu jàppoo dara mën nga bay li jàng bi nga dem wuti leneen waaye soo jàngalee nit nga jàngal ko nu muy liggéey am dara nga jàngal ko nu mu kame yàlla ak nu muy kame Serigne Touba su fa jogee dana mën a yore boppam te du tooñ kenn bi mu fi ñëwee li ma ñuy jëkk gumloo mooy murit ak tiijaan duñu ay noon ay mbokk lañ yu bokk lislaam bokk di julli bokk di jàngale lislaam fii ci kër Momar Sarr ràññee na ko ne ci suñu bopp ak suñu diggante ak moom ak njabootam ni la ko xam ne kii ku yàlla bool ak moom benn saa boo jógee ci moom da nga mën a yore sa bopp ci saa yu bare bare bare bare ci wàllu xam-xam ci wàllu doomi aadama ci wàllu relation ci wàllu communication ci wàllu sensibilisation ci wàllu yu bare bare bare wallahi yàlla xam na ko jàng nañ ci moom du bare bare xam ne tey moom la ñu wéyee waa jàngale diggante kii béy ak ki sàmm yëgoon naa ni sëriñ bi jàngale ci li jëriñ doomu aadama muy muñ di jéggalante di waxtaan pour déggoo am ndax nekkan fi ba jóge fi musul jàppante ak benn sàmm ti fi réewu sàmmal li mu ñu jàngal mooy mbéy ak sàmm ndax amoon na nag ndax ma la ñëng moo ko yoroon man demay jàmm demay sàmm demay béy te moo ñu ko jàngal loolu lañ jànga ci moom kenn ku nekk ba mu nekkee fii gum nga ne ndekk mbéy du rek ay mbir moo xam ne tegul fenn gannaaw Serigne Moustapha Bassirou mag surtout Serigne Touba moo jóge Touba ñëw fii di béy di jàngal doomu aadama nu ñuy béyee di jàngal doomu aadama ni ñuy toppee yàlla ak ni ñuy moytu lu bon kon kenn ku nekk danga war a béy Ross Béthio mu sampoon fa Serigne Mouhamadou Abdoulahi Mbacké doomam ak magi teel bi yam àndaloon liggéey bi Bambey mu bàyyi woon fa sëriñ Abdul Hakim Mbàkke ak magi taaliba ya fa nekkoon fii ñuy wax Mbàkke mu bàyyi woon fa soxna Ami Mbàkke moom sëriñ Abdullahi Mbàkke borom dër bi ak sëriñ Basiiru Mbàkke doomam madinatu salaam mu joxoon ko rakkam son excellence sëriñ Ishaq Bachiru Mbàkke bustaan mu bàyyi woon fa sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke mi nga xam ne mooy ab taawam ñu gën koo xam ci sëriñ Cheikh Njool gannaaw ba mu jiitoo mu wutal ko fa sëriñ Moussa mu uufal ko njaboot gi njabootuk sëriñ Cheikh ga mu fa bàyyi te ka nekk ca bopp ba di taawub sëriñ Cheikh njool muy sëriñ ab Lahad Mbacke naawel mu sampoon fa sëriñ Moussa Mbacke naawel mi nga xamante ne bii mooy actuel xalifa sëriñ faa Bassirou ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko mu àndoon ko ak magi taalibe ya fa nekkoon. sëriñ Moustapha Bassirou moom loo wax rek da nga bàyyi ci moom dara te la nga cee xam ne lu néew ni sa morom da nga lu ko lu ko gën a bëri li nga xam nag moom mooy lu nit man bi ci man bàcc ngoom bi ma ñëwee naawel gii ah, wax dëgg yàlla maa nekkoon jëriñ bi mag ji biñ koy sañ ci 82 boobu it ba ku ñuy wax ba Aliou Guèye moom lan la mu nekk suñu jëriñ biñ fi ñëwee itam fekk président communal biñ fekk mooy Mor Diop boobu wax dëgg yaatal nañu dalal nañu ci tool yi nga xam ne Baye Cheikh saar moo ko fi jox biñ fi ñëw itam suñu borom dogal na sëñ Mourab Laay Mbacke moom lan nu boole loon mu nekkoon suñu jëriñ dal dal kër bi Aliou Guèye nuy gor gor bi gor bi ñu ngi ko gor ci 82 1982 boobu it am na ci tegtal yoo xam ne nii ñi nga xam ne ñi daa indi jëli nit ñi ak di leen delloo ak diggante nag yi ñuy rey ak lépp wax dëgg baayu Moustapha Dieng ñi sëñ Abdou Dieng bokk na ci ñi daa ànd ak oto yi di leen jëri ci dëkk yi di leen indi ñuy gor gor bi gor bi suñu borom dogal na biñ ko tàmbalee sëriñ bi indi woon na fi fukki ak fukki nag ak juróom ne nañ ko def fukki bés ak juróom daara ju ne ñu jox ko ab camion mu gor ko camion euh, tool bu ne mi nekkoon ñaar fukki hectare ak benn bisum borom dogal loolee la di ko toppatoo di ko gor ko gor ba gor bi àgg ah nun ñii suñu borom dogal nu saxal nu mu ci jëriñ yi man mi di bàcc sëriñ Bàcc Ngom ak sëriñ Mor ñii ak ku ñuy wax sëriñ Moustapha Guèye ak Bassirou Sine ak Bassirou Touré ñu juróom ak Modou Diakhaté muy juróom benn daara Gosaas mu bàyyi woon fa sëriñ Ahmadou Mbacke ak magi taalibe yi fa nekkoon gën gi neew mu bàyyi woon fa sëriñ Modou Awa Balla Mbacke ñu gën ko xam ci sëriñ Modou Kara Mbacke mbuur mu yóbbu woon fa ab sëtam bu ñuy wax sëriñ Moustahine Mbacke mu àndoon ko ak magi taalibe yi fa newoon di dundal barab ba عساك على المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما ما لا ولا سابي Ndofane mu bàyyi woon fa Mame Balla Mbacké ak magi taalibe ya fa nekkoon kër ma jabel mu tegoon fa Serigne Cheikh Ibra Mbacké ñu gën ko xam ci Serigne Lamp Mbacké Poroxaan mu bàyyi woon fa doomam ju ñuy wax Serigne Bassirou Mbacké Porokhane moom ak rakkam du ñuy wax sëriñ Mbàkke Madina daaru minam saalum mu féetaloon ko rakkam du ñuy wax mu Mouhamadul Mountakha Mbàkke mi nga xamante ne tey jii mooy xalifa général de Mourides ñu ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko fa féeteeg tool ya mu tudd Daaru Salaam mu bàyyi woon ko ak doomam bi ñuy wax Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacke mu àndoon ko ak magi taalibe waa dëkk bi dañuy ñu ngi ko sanc ci 1967 1967 bi ñuy ñëw fii bi sëñ Moustapha di jóg di ñëw fii dañoo dal dal fële ca dëkk bu ñuy wax Ojalde. diggante ak dëkk bi tuuti xaw naa mat ñetti kilomètre foofa la ñu dal 1967 ba génn ko nawet fa ba génn li ko 68 door a ñëw fii ci Daaru Minam ñëwee fii 1968 boobu fukki borom kër ak ñeent ñoo ñoom la ñoom la àndal ñëw fii sëriñ Touré mi taxaw ci sama wet fekke na ko moom ci ñi fii sëriñ bi indi at moom mu ñu fi jëkk la ak bàyyi seex ñi doon rooti fu ñuy wax Odiolde teen bu ñuy wax Odiolde boobu fii amagul ab teen root nañ fa ñeenti at door a teen bee ngeen ba nga xam ne bii moom la ñuy waaj a seeti ci 1971 boobu mooñ ki bi ñu rootee ci teen bi su 1971 ba 1980 ci la ñu bët bët euh, forage bi. 1974 fii la lañ ko def communauté rurale 1974. mu def Cheikh Cissé président communauté rurale bi. bi ñu fi sanc nag wax dëgg yàlla jànkonte nañ ak jafe-jafe yoo xam ni su fekkante nu jàmbaar dana daw mbaa ñi mu àndal daw waaye ko ànd ak ku dul daw doo mën a daw suñu sa mënut a daw mënut a dellu gannaaw faju rek neexu fi war a defee. barab bi bi nu fi ñëw. sëriñ bi daa dindi ci boobu moo du goreel mooy colonel ci nasroog tiib waaye sëñ bi da caa bi ñu xamee ne euh, da caa dindi téeméeri nit di fukki jawwin jawwin bi ne fukki nit ki nga xam ne moom lañ jiitaloon moom sëñ Fallou Dieng la tudd teg ca ku ñuy wax bu Ja ñu teg ci ku ñuy wax Basiru Sëy tegaat ca ku ñuy wax Mbàkke Ture tegaat ca ku ñuy wax Góora Njaay ñu toog caa doog caa teg euh, Cheikh Fall Guèye doog cee teg ku ñuy wax Serigne Ndiir doog cee teg ku ñuy wax Pate Fall ak ku ñuy wax Modou mbay man ñu fegg ca kaw nuy fukki daara daa fi doog a ñëw nag àll bi daa lool moo tax ku ne ñaar fi bay ñoom ñoo kenn ku ne am euh, euh, juróom-ñaari mag ñetti gone muy muy fukki nit nga xam ne seen mboole daal téeméeri dong daal ñoo sañc dëkk ba sañc daara yi jët fee nawet ñaari at bismillahi irrahmani irahim wa sala allahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman uqal bukaawu ala saadatin amwaati tabkil araadi alayhim kasamawaati uqal bukaawu ala saadatin amwaati tabkil araadi alayhim kasamawaati abki alayhim wa arju fi lbukaayi gadan ridwaana man fi gaabu bilxalawaati Cheikh Mouhamadoul Moustapha ibnu Cheikh Mouhamadoul Bachir kenn mënu koo jeexal ndax géej la li mu liggéeyal lislaam li mu def ci lu baax kenn mënu koo jeexal ci ay waxtu kenn mënu koo jeexal ci ay bis ndax dundam gépp ci lu baax la ko nekk bi mu xàmmee ba nim fi jóge bi muy làqu euh, diisoon na waaye gannaaw gi ma dalale sama xel ni ñoom duñ fi jóg waaw duñu fi jóg ah ndax lool cër boobu la leen yàlla la leen yàlla dëgg la nag bàmmeelu yonent bi sax boo ko tiimee la ngay njëkk def mooy ñaanal ko waaye teewul nag nga xam ni leeram ba ba àddunay tukki du fi jóg ñoom seen leer ba ba àddunay tukki du fi jóg. dis na ma lool. waaye damaa xam ni ginnaaw wajuram wu tedd ba dem na. seexal xaddim ñu yaakaar noonu. kuy liggéey faaw nga wàcc. sëñ Musaa Basiru moom man nga ne ma am na juróomi at yoo xam ne waajal na boppam bis bu set defe ne ne day man day yàkkamti bis set mu jàpp ne tey la war a dem yeesalaat testament bi mu def lii laa bëgg ñu def ko lañ ko war a def ba nga xam ne moom waxtu wuñ yëfi ñëwee rek fekk na noppi ne loolaa waral la muy guddi guddi ba mu accès ñu mën a def lépp ndax defoon na lépp amatul lu ñuy defal waaye loolu lu koy waral foofu da nga faa jëfut looy ragal da nga faa jiital loo xam ne xam nga ne ngege naayeen lañ la loo xam ne boo demee da ngay tëdd rek nelaw jëmm ju mel noonu bu buñ ko dee gis ba ci mu yàgg gisatuñ ko ah bët yi dana dana wéet xol yi dana xaw a tooy waaye it nañ am njàmbaar bu toll ne ci liggéey la nekkoon te liggéey boobee da ko war a sotti ci ay loxo te loxo yooyu dañ ko war a àggale liggéey boobu lii mooy li nga xam ne moom responsabilité bi moom la ñu yëg jamono bi nga xam ne sëñ Moustapha tàgg ñu ngi ñuy tàggu ngir ngir war a wàcc liggéey ndax moom gën da daan wax ne ku nekk ci tool da ngaa war a xam da ngaa yàq war a yàkkamteel wàcc ba dem añi loolu loolu waaj loolu yu mel noonu la la ñu daan duy ba ba mu fees ba nga xam ne buñ ko gisul itam dañuy xam ne daa wàcc liggéey dem añi rek la ahli tariqati hazmun bil haqiqati wa min lawazimiha minhajuha abadan wa hiya shari'atu fi batin wa ghayati wa rufqatun wa hiya ikhwanun lahum himamun ma'a al-wafa'i bi sidqin fi al-ukhuwati والكل من جملة السادات دورة بن يكفي المريد مريدا ذا غواياتي kullun min alqawmi sayqun alimun wariun minhum murabbin bi adkaarin wa xaalaati minhum muraqin bi xaalin waxda abadan minhum murabbin muraqin bil ishaaraati dafa fekk lu lu ma lu ma bett la ndax ni ma ko yëgee ndax moom yàlla daf ko suturaal ba tëddut li ma ci am la ci ñëpp am ba ci ñun dëkkal ci biir këram waaye li tax mu metti mooy loo foogut yaakaaroo ko donte sax jullit nga xam nga ne suñu boroom xam la ne ne kenn du fi sax waaye moom meloon na noo xam ne doo ko mën a foog ci waxtu woowu ndax ginnaaw ñu baax ñi fi ñi ko jiitu ñépp dem nañ xam nga ne day dem boo ko yëgoon ci tawat walla nga yëg ko ci leneen du diis waaye yooyu yëpp amut moom dafa mel ne ku bëgg a dem rek dem. man seet naa ko bis mu ni man de li ma sant yàlla mooy bi bi bi bi bi ma daataan am gàllankoor ci sama jëmmi bopp fekk na lu ma bëgg a liggéeyal Cheikh Abdoul Ahad liggéeyal naa ko Sëriñ Tuubaa ba noppi yakfil murida maridan da gawayaati kullun min alqawmi shaykhun alimun wari'un minhum murabbin bi adkarin wa halati minhum muraqin bi halin wahda abadan minhum murabbin muraqin bil isharati kullun khabirun bi adwa'il qulubi ma'an yakfil muridina anwa' ash-shaqawati kullun karimun taqiyun du hudan wa saxa yumdi nasiata fi kullil bariyaati am na am na am na am na bayit wu sëriñ bi di wax ci ci inna nii wal tubashir bi alyatama dawaman ansihim bi abaahum kulla xiini mas naa ko wax ne ko bayit boobu ci yow laa ko déggee daal nee na ko it bis Abdou Diouf moo fa doon ñëw mu taxaw ngan nga ba ngan nga jeex mu woo ko mu ñëw mën ko sëñ Moustapha mu ko Mbàkke mu ko sant naa la gërëm naa ngan gi de gis naa ñëpp ñi ma bokkal sëñ Tuubaa kenn disut sama doom yeeg ñëpp gis naa leen ñax ñax ñax ñax ñax yoo xam ne mi ngi woon ci diggante yi bay nga ko ba lépp set waaye la ma la cay fayee nag ba yow man xiyaamati bu sëñ Tuubaa teewee moom Cheikh Abdoul Ahad ci mbaakool la bokk. Mm. añu mbaakool gépp ci sa loxo laa koy teg. طوبى لعبد مريد صادق لهم بخدمة أو بحب أو هديات نالوا بقف الرسول المستوى رتبا صلى عليه الذي يعطي المزيات بكنا تي نيغا خامني ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون تلا سيغ موسى بشير بوك لا تخ سيغ تواب لا بول كو xam am nga ngërëmul ki li bind loolu doy na muy sun borom tabaraka wa taala mi am ngërëmul ki tax bind la dem ngóor mu sëñ Tuubaa dem ngóor mu sëñ Amadu Basir sama jur am sama gërëm loolu kenna atunu ko nag waaw ah, boobu yéen kat kon ko yéen te te ah, yan bi mu mu mu njëkk a def ni moom lim lim dégg ak am ak li ko ko may ah, nit ku baax ku ko suñu borom cërale doy na ci àdduna doy na ci àllaaxira mu jëm naan noo ñaan suñu borom dimbali ñu ci amoon saa foofee mu nekk. lam fa bëgg lépp suñu boom defale ko nu koy njotam waaye fi ma ci liggéey bàyyi bàyyi fi jabaram gi nga xam ne eh, kenn ku si ba tey ci moom donte ab la wala mu ko yaara foom itam mel na ni lay tax yoon wi borom am ci lam bëgg ma nga ca moom ñaan suñu boom àggalee ko yéen yooyu yëpp waaw dama nekk si màggalu bi si guddi rek loolu mii moo ma téléphoné te mu ci eh, ne ko lan mu mun ma sëñ bi sax ma ne ko sëñ bi sax ma sëñ bi sax xamatuma lu may xam nga nit boo ko bëggee. te deful sa xol. bu ngeen ngeen jaxasoo jaxasoo xam ne adduna sëpp xam ne jaxasoo ngeen. faw seen mbir day niroo. moo tax mbiyam dafa niroo si si Abdou Lahad aw dox aw aw doxin ndax moom rek moo ko ñoroon aw doxin moom rek ko ñoroon loolee nag moo feeñ si diggam ak si Abdou Lahad ci wàllu dem gi. si Abdou Lahad moom dégg ngeen li ngeen nam demee woon. moom it dégg ngeen ni mu demee. bi mu demee. faqiidul islaam la wal watani wal iraadati wa sharafi <laughs> waaw ku lislaam ñàkk la bi mu demee ku réew mi ñàkk la ndax liggéeykat la ku taalibi gi ñàkk la ndax li mu doon doxee ci yoon yi waaye ku honneur ñàkk la yooyu yooyu bi mu demee loolu lañ ci jàngal salaatu haadin hadaahum li istiqaamaati ala almukarrami xayri alxalqi kullihim salaatu mugnin jazaahum xayra xayraati alay abqa salaatin bisalaami maan fi alihi lxuri turran kulla awqaati daayira maam jaare yu Kaolack yi biñ tasee ñëw di ko siyaare Kaolack ñu ñëw mu ni si soxna yi euh, namoon namoon namoon ngeen maam ñu ñu ni ko waaw kañ bàkkee leen maa leen raw maa raw man mi même ñëw seet si leen keroog itam ñu bari xam nañu euh, sëñ <laughs> yal nañu ko yàlla fa yàlla Cheikh Mahamadou Moustapha bi mu wàccib bi ma ko tiimee moo ko xamal ne ko jekk naa ànd ak it ngir toog liggéey du ma am ca eh, moom mu bàyyi ma fi alhamdulilah rabbil alamin ma nekk ci loolu فحيثما برزت ليلى ببهجتها عنها تولوا إلى المولى الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين لا ذكر هند ولمنا في المقالات قوم بأصلحة أعداءهم قهروا أتعالوا بالمزايا والكرامات arkaanu bayti jamiil qawmi arbaatun bihaa yuassasu bunyaanul wilaayaati sumtun wa juucun tawiilun bacdahu saharun wa uzlatun an shuyuuxin bil ishaaraati qawmun tariqatuhum takfil muriidaadan minal mariidi wa anwaa'il guruuraati طريقهم قصد وجه الله دون هوى مع الأصول التي تنفر رعوناتي min tawbatin quddimat xawfi rajam maahu iksaaru xusnin dawaaman bilqanaati wa zuudu fi kulli faanin baadahu waraun maa tawakkuli sabrun kulla saati jihaadu nafsin wa shukrun bilqadaai ridan tarku iltifaatin ila haali lbariyaati tariqahum asratun jaad lawaasimuha labudda minha li arbaabi liraadaati fa maqsadun wa huwa maa yufdi ila safarin minha dalilun ka shayqin bi futuhaati wa zaadu wa huwa tuqaa minha silaahuhum wa huwa alwujuu'u alladi